waat naa ni lii mañ góor la yow yaay yow yaay boromi leer mbaax du weesu mbaax waa wallaay du weesu mbaaxe borom diwaan Cheikh ma paate ci la ngaare a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خدمه وأمته وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي غيناو بي bi سونو بروم سبحانه وتعالى جولي سي مصطفى صلى الله عليه وسلم سنت شيخ الخديم ñu ngi nuyu bu baax ak a ñaanal ki nga xam ne moo fi toog toogaay Sayxul Xadim te mate ko sëkk te war di roy ci moom lépp ndax li nga xam ne mooy jëriñ ëllëg yomal xiyaam te Serigne Touba waxoon ne ëllëg yomal xiyaam lu fa nit manqué manit nag koo mottali ba mu des ak taalibe te Cheikh mun taxaa moom léppam ak taalibe la kon waris na see roy bu baax. di ko ñaanal suñu borom mel ko fan bu gudd wa and ak wër te lepp lu mu yene liggéeyal mamam ju tedd ja suñu borom katnal ko bam def ko te and ko mbolam jullit yëpp loolu la ñaanal nga xamne mo fi toog toogaay Cheikh Ibrahima fati ak nga xamne mo fi togal Serigne ci le ñu gën ko miin ci Serigne Cheikh Faty ci la ndjay ñi ñaanal nga xamne amuñu lu dul sunu yëngu ak sunu dal. sunu dund ak sunu dee lépp moom lañ ko jox di ab taalibeem muy ci am Muhammadul Kara jàmbaari lislaam ku bëgg Sëriñ Tuubaa ak yëngoom ak dalam lépp Sëriñ Tuubaa la ko jox loolu nag ñun warit nañ ci roy ginnaaw loolu itam ñu dikk fii ci Bambey fekk ci fi Sëriñ Mbay Yàdd di taalibeeb Sëriñ Cheikh Sylla Diwaan bu ko nongaloon ba Sëriñ Cheikh Sylla Diwaan gërëm ko muy sant ab sëriñam tey di sëriñ Cheikh la Diwaan di ko xam ne nii mboolem àdduna bi ñëpp ko waran di sant ndax jëf jure ji nga xam ne moom la liggéeyal lislaam ah damay wax ne xanaa umpale rek waaye bu fekkoon ñëpp xamee nañ ko niñ ko xamee ñëppay jóg di ko sant ndax sëriñ Cheikh moomu de mooy jëmm ji nga xam ne moo sooy leen tàkk ci Cheikh Ibrahima Faty jeexoon tàkk ci sëriñ tuubaa ab liggéeyam lepp mu jëm jëmale ko ci yalla sunu morom subhanahu wa taala jankonté ak cione yu met waye nak ku ne xam ne ne la Sëriñ Tuubaa waxoon ne bada li khabla an ara ridan mu abada mo ci nek ma ngi len di yene bima lata am ngeerumul yalla lu sax dak dajna lu mburu du ci xamal nako bu ba dawul te noppalu muy ne ci liggéeyu Serigne Touba bi rek la nekk ci yitte jaam ñi rek la nekk kooku nag yeewee naa sant te ko xam ci moom dara de da nga ko sant muy koo xam ne nii wilaayaam pas-pasam pëstéefam bëggam Serigne tubaa tax na mu nekk ci soxlay jaam ñi tax na mu nekk ci yitte jaam tax na mu nekk ci mboolem loo xam ne nii rek luy jariñ fii ci àdduna la ak ëllëg yoom xiyam dañu jëm ba lépp li ab taalibe di am sëriñ bi fàggal nañu ko te loolu xam nañ ci lu bare bare bari ci pëccee fi bop it am na lu suñu wajur nett li li tax ñu di netli bëgg talibé bu ne <coughs> nga roy sa loola ndax dañuy wax ku ñuy wax Serigne Ousmane ndjay dekkon kawlak bi mu génné aduna. Serigne Cheikh moko ko dekkal lu yéme ngi nonu dekkal ku faatu Serigne Thiam mom ko dekkal nak neena dekal dekkal gi ngi ko dekkal teggu ko ci mm, wilaya teggu ko ci batin ci pas pass lako tek neena dafa nat pas-pasu bopam bi ak pas-pasu taalibeem bi teud xam manis na ko dimbalé kon nang ñen dañuy gis na ñun taalibe yi ñu gëna galan ko ci jamono ji ñu toll moy ñak pas-pas sëñ bi lum la bari bari bari te amu pas-pas da def ba son rek waye lolu mom kenn duut ko gis kon pas-pas rek mo am solo ginnaaw lolu itam. jàmbaaram ji nga xam ne moo ko fi wutu muy Serigne Cheikh ci muy Serigne Modou Kara Sylla ku mel ne Serigne Cheikh ni mu amee woon pëteef ni mu amoo woon fit ni mu amoo woon wilaaya lépp képp koo xam ne nii wuutu nga ko moom rek sa jëf feeñ rek jàmbaar nga eh, te képp ko xam Cheikh Mouhamadou Kara xam ne fépp fu way juróom tegal liggéey bi rek moom teg na ko fu ko raw dañ leen di jox firnde rek ci ñun taalibe yi bu ñu déggee nettali bi ñu gën a góorgóorlu gën a yokk pas muy bi wajuram di doog a làqu moom mu nekk tuut tànk ci saahir liggéey bi diis ci moom lool sëñ Abdou Khoudous da ko woo ba mu ñëw ne ko ginnaaw tuut tànk nga te it sa wajur mi ngi doog a génn àdduna met na si yow damaa bëgg ndog yi muy def nga ba jamono ña fekk ba dafa jooy ne ko bu ko ma tay la sama bopp sa poorum Dakar ba di yanu ak képp ku ma déggal lu ma ci amee def ko ci ndog yi duma ko ba mukk kon linci liñ ci dégg né Serigne Touba sa yu la jaralé sa bakkan la nga bëgg dana am ta sa bakkan du sa dess kon nak nañ jël suñu bakkan yépp séel ko ci bëgg Serigne Touba ci liggéeyal ko ci jokk suñu alal ci jokk suñu lépp ku nekk nak nang koy jeexale ci Serigne Touba yang koy jeexale sa bunt ci Serigne Touba ndax moy sam Serigne Touba té ñun de ñëwuñu kenn ci kilifa ñëwuñu kenn ci Serigne man na Serigne man na kilifa té ni mu ko xamé ni la ko ñëpp xamé du jurgé né ka tax. di nekk gi mu nekk suñu wajur tax ndax soxlawul loolu ndax lépp dañ ko jaay jënde ko ak taalibe waaw kon ñun taalibe yi gën a xeebu ci kër gi ci leen bokk waaye nag lu nit xamadi xamadi xamadi xam ne si Cheikh Mouhamadul karaa moom euh, ci góor yàlla yi la bokk te li tax ñu wax loolu ab sëriñam ci boppam moo ne boo demee neel Cheikh Mouhamadul Kara fekk ñu yóbbul ko ba ñëw mu ne boo demee neel Cheikh Mouhamadul Kara day sant naa ko Serigne Touba sant na ko Thierno sant na ko yàlla sant na ko daal di yëkkati men bu jox ko ne ko boo demee nee neen Modou Kara na sol mbub mi te njëkk ma seen ñaanal lu ñaan yàlla def ko nee neen Modou Kara saxal ko neex na daan lu ñaan yàlla def ko te ñun loolu ñun am nañ ci firnde mboolem ñi nekk ci kaw ñëpp ñun ñi nga xam ne sa kër gi la nekk duñ fa jóg guddi duñ fa jóg bëccëg te lan fay sàkk bu fa ñëwutoon duñ fa ñëw te bari na ñun fi dégg ci yoon wi fan yegg ginnaaw yàlla loxo ma ngi ci biir kon jëmm ju mel noonu ñun taalib yi buñ ko amee war nañ koo gën a fonk war nañ koo gën a jàpp xam ne lépp lu ñu jéggaane ci bit daal suñu borom def na ko ci jëmmam ji ginnaaw loolu itam suñu mbokki taalib yi ñu xam ne ay tuut tànk lan ay gone lan ci caaxir wala boog ma ay gone lan rek ñu xam ne Serigne Touba dafa bind ab téere boo xam ne nii yitam jëpp ñu ngi ko jëmale ci ndaw ñi rek. tudde téere bi yóbbulu ndaw ñi dafa waxta tàmbalima ba mu ne yaa ayuha sibyaan laa tastaqilu an alhuda wa bilxuluumi istaqilu fastaqilu bil hifci wa tilaawa wajtanibu majaalis saqaawa ah loolu ni nga koy mën a amee wala si moom mën laa yisaalu xaabida li rabbihi ilaa huda qaida képp ku yàlla dogal nag ba rii rëcc la fa kullu man baadara waxta sixari ila alhuda istiraha waxtal kibari ci nan wa man tadaaraka li si xat faata min al laqa wa xamaral awqaata Yen ndaw ñi bu leen soxla wo dara lu dul ak njub na ngeen soxla wo ak njub ndax ak njub rek ma am solo na ngeen soxla wo jang na ngeen soxla wo wattu téereb yalla bi te bu ngeen ko watte di ko jang te di ko jàngale na ngeen moytandiku jataayu texeet yi ñu nak ko ban jataay mooy jataayu te yi mo ne bepp jotaay bo xamni bo fa toge do fa doli ko dara ci sun borom rek jappal ne boobu yi la te na ngeen yittewoo koo ko ne dafa tege sa yoon wax te ko and ak mom mu tegg la sa yoon wax munta ñak képp koo xam ni sàggan nga nag ba sag ndaw rëcc la nanga nga fexe góorgóorlu ba sag mag nga jëm koo dabaatal ci nan nga jéem a dabaatal waxtu suñ boroom yi eh, ci jaamu ko ci sellal ci tuub nee na lii daal képp ko def suñ boroom mën laa dogal eh, la la sag ndaw nga am ko te Sëriñ Tuubaa day wax ne képp ku eh, fexe ba sag ndaw maanaam sam xëy neexut na nga fexe ba sam ngontu neex ñu ne ko lan mooy loolu mu ne. ñu tàmbalee bi nga gane àdduna ba ba ngay am ñeent fukki at jàppal na sam ngone sam xëya ngoog bu neexul nag na nga góorgóorlu ba li tàmbalee si ñeent fukki at ba ba ngay génn àdduna fexeel mu neex kon nag ñun ginnaaw toll nañ sunum xëy ñun ngone yi nan góorgóorlu ba sunum xëy neex sunum ngont neex loolu nag duñ ko amee dara ci lu dul topp ndigal bàyyi tere lu nu sëriñ bi digal ñu def loolu lu ñu digalu duñ ci am soxla ci moom ci moom day ci loolu la jaar ba am li mu am ku ne xam ne ni mu toppee woon way juróom sëriñ Cheikh si la diwaan mu lool mu muñ lépp waaye ndax réccu na ko tey déedéet ku ne xam ne jànkoon lim jànkoonto ci nat ak ci coona waaye loolu moom sunu jàmbaar yi Seexul Xadim na nu yoon yi juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at yu manqué tuuti lépp mu nekk ci ay natu te loolu kat mooy géej gi waaye nag moom ñu jàpp ne daanaka ba mu gën a àdduna ba ni muy dell ci taariir lépp ci ay natt la ne waaye loolu mooy natt yi gën a siiw léegi nag muñ gim ko muñ moo ko may ginnaaw yàlla lu mu am kon nag ñun gone yi nañ teg suñu tànk sunu xel ak sunu bëgg-bëgg lepp ci jàmbaar yooyu nga xam ne moo ñu jiitu woon nit kat bu fekkee da nga ne da nga koo bëgg tamit dëgg ca yow lam bëggoon war nga foo bëgg de lépp lu mu bañ kenn warul sa gis kon Seexul Xadim mii sunu royukaay wala ñun ci am Hamdul karam yi nga xam ne moom la yàlla teg sunu kanam lam nekkoon nañ ci nekk moom de lu mu yor jox na ko sëriñam te lu mu ko woowee mu dem lu mu ko santin mu def te du nekk ci mukk lu mu koy kon ñun ñi bu fekkee bëgg na la lam am ñu am ko ndax ñoo jaar fam jaar fan lan ko war a jaaree moom de jaaree na ko fam ko war a jaare muy buntam ci Seexul Xadim ñun nag ginnaaw mooy suñu bunt ci Seexul nam defoon way juróom wax defoon ko sëriñam ba bu fekkee bëgg na lam bëgg na daal def loolu kon ñu ngi jégalu kàddu yi bu baax lii dafa nekk loo xam ne nii nekkul lu ma ne ndax li nekk ci xol bi mënut a génn ci làmmiñ wi li ko waral nag mu yéene jee bari rek. kon yàlla mi nga xam ne moo am lépp te lépp ma lépp nga fa moom te soxlawu ci dara te mu nekk sa moom ak mu génn ko moo yem ci moom képp ndax moom du koy jeexal yàlla nu defal ñu daje ngërëmu sëriñ bi yàlla nu àddina ji ñu nekk lépp luñ fi yittewoo suñu borom defal ñu ko ëllëg yomal xiyaam dañu jëmit suñu borom defal ñu ci lu kaw njot ñaan nag dafa nekk loo xam ne ni mënut a ñàkk ne loolu moom suñu xel dal na ci lool la sëriñ Tuubaa waxoon ne fu ngeen séene lu baax na ngeen xam ne fii la jëm ci dafay ak ceegul rek kon ñun bu fekkee ne gëm nañ loolu wóor ñuy daw jëm ci dara ba ñuy jaral comme lii ñu koy xamee ci jamono jii muy vanter sa bakkan ci géej wala ci désert bi wala yu mel noonu ñàkk xam rek laa ko jàppe waaw kon nag yàlla nu yàlla defal tawféex defal ñu ndimbal suñ mbay mi nga xam ne mooy woote lii yàlla ko yàlla defal kàttan ba lépp lu mu ci yéene suñu borom defal ko ci la kawe njort sëriñam bu baax bu tedd bi nga xam ne xeebalul kenn bisam lii yëmalewu ko ci sëñ Bay rek ndax euh, bu ma juumul barki dee moo njaay rek demal na Kaolack ci lu mel nii te it euh, moom mooy jëmm joo xam ne nii maa ngi fàttaliku benn bis yàggul dara am koo xam ne nii danoo àndoon ak sëñ bi li sëñ bi sol ci gaatuwaal ak fu mu jëm ni mu soree moom bi ñu demee ba yegg fi ñu jëm kooku nag xëy na taxutal mu miin sëñ bu baax moom dafa yéemu ci yàlla ndax yaakaaroon na sëñ bi moom kii jëralu ko jóg ak fan jëm noonu waaye boobu fekk na moom xamul sëñ bi ndax moom si loolu rek lay dox wax dëgg waaw xeebul kenn bisam kon nag yàlla na ko yàlla defal lépp loo xam ne yéene na ko ci kër Serigne Touba gi kër Ibrahima Fati gi kër Serigne Mapaate gi te it xam nañ dana am ndax uh, yoon woo mi jaar am ko mu wàcc ko waaw kon nag ñuy jégalu bu baax Serigne Moustapha Sylla mii tamit moom di rakk Cheikh Mouhamadul liit rek ju ko déggal ku bëgg lu baax ñu ngi koy ñaanal fépp fa xam ne bëgg na faa yegg suñu borom eh, yóbbu ko fa waaw defal ko ci li kawe njort daal waaw yàlla naka ab xolam eh, suñu borom fay ab xolam daal ci gàttal yéen waa diwan TV tamit ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci liggéey bu sell bi ci liggéey bu rafet bi nga xam ne lépp mat la na eh, ndax lay am loo xam ne nii da dul mën a ñàkk ci àdduna ji ñu nekk rawatina jamono ji ñu toll. ndax jamono xat na xat goo xam ne nii kenn mënut a teewe lépp waaye nag toog fa nga nekk ñu indil la loo xam ne nii ay kilomètres la wala ay ay fan la ñu indil la ko ba mu jege sa sa kanam wax dëgg yàlla am loolu ka la koy defal moom wàccoon ak yow kon nag yàlla suñ suñu borom defal ñu leen bokk ci télé yi gën a mag ci Sénégal. war lii bay gur laay yow yaay borom maa dula su mbaaxee borom di naa lii mayu bur la yow yaay yow yaay